dafa am benn waay bu ma xamante loon par messenger ñuy waxtaan waxtaan ba ma échangeante ak moom contact dañ doon déggante nag tout le temps ça va ça va waxoon daf ma bëgg gis ma ne ko noonu actuellement nii moom mënumaa dem fenn parce que dama nekk ci jàng bi affaire yu demee noonu ba tey mu xëy envoyé ma message messenger ne ma damaa soxla benn fekk ci biir waxtaan bi laajoon naa ko looy liggéey affaire yooyu mu naan ma ay boutique lay yor di jaay ay yére mu ne ma dafa soxla tey benn jaaykat mu ne ma ma ne ko en ah bon dégg mu ne genre man la ci wóolu ma ne ko ah bu fekkoon ma pare li may jàng actuellement nii de mën naa ko def mais comme que pareeguma li may jàng nii nii nii ma ko def sincèrement xanaa ma pare mu ne ma c'est urgent parce que dama ubbi boutique bi ba pare aw ma ko fa nekk ma ne ko boutique lan la mu ne ma boutique buy jaay ay téléphone ma ne ko fu mu nekk mu ne ma mbaaw mu ne ma wala bu fekkee am nga sa copine bu deful dara nga boole ma ak moom vu que nag nous nous sommes de Kaolack nous sommes d'origine de Kaolack ma ne sama benn copine Rama actuellement vacances yi moom mu ngi woon fii Dakar si benn restaurant di fa def service di fa def serveuse léegi restaurant boobu dañ ko war a defar ma ne Rama bu fekkee sa salaire dépassé wut cent mille ma boole la ak mom parce que mom nee 100000 lay fay Rama ne ma cinquante lañ ma don fay fi te restaurant bi sax dañ koy deferaat ma mettre ko en rapport ak mom mu Rama légui suba di nga mëna a da ngay ñëw nga jël si sa badge ak t-shirt ak xawma lan lan boy fara boy sol Rama woma ma wax ma ko ko wa Rama woma ma téléphone ne ma astu si presse kan la nekkee mané ko yi Rama man xam naa Dakar ni ni rek mais si presse mom xom ban côté la jël ko Rama mu ne ma batay xawma mané ko légui xam nga nu ñi def su yaa ngi yor xaalis da ngay jël taxi boo jëlee taxi ka woo ko nga jox ko téléphone bi moom dina ko expliquer ramatulaay def loolu rama bi mu yegg see tak mu woo ma téléphone ne ma ay 14 heures la fa yegg mu woo ma téléphone ne ma yegg si naa moom benn cousin sax la ma booleel pour mu jël si ma ma ne ko ah kon baax na waa baax na su ma añee ba pare ñu déggante si kanam ma añ ba pare ba ay 16 heures déggaatuma rama ma woo ko téléphone pour xool na ji récupéré na li muy récupéré ba pare munu ma ko jot mu dugal ma liste noire mënu maa jot Rama ma jaaxle ma toog ba 18h jotuma ko ma message Mohamed ne ko yow Rama yegg si na wala man parce que mënu ko jot Mohamed mënuma ma koo jot mënu maa jot Rama. par la suite sànq ni ay 20h bi mu doog a jot laa woo benn cousin bu mu dëkkal ma ne ko Rama maa ngi koy woo daf maa dugal liste noire dafa ñibbisi mu ne ma Rama de génnoon na waaye neen dañoo sàcc téléphone am bi ma jotee Rama téléphone mu ne ma ki ma booleel daf ma sàcc ki mu wax. pour mu jël si ma bi ma waxee moom daf ne na ma jox kooku kooku sàcc na téléphone bi dem na fi mu toll mënuñ leen jot feen man nag ce qui m'a fait mal mooy le fait que j'ai été aussi stupide que ça mais mënuma ko woon xalaat sincèrement mënu ma woon ñaawee noon njot benn jël na téléphone jàmbur dem ak moom mais imagine toi ñaata nit la ko mën a def ëllëg mënuñ ko jot téléphone fi mu toll ni message naa ko messenger message naa ko whatsapp kay nanguma sax déglu man mënuma sax wax ak moom c'est parce que nee na bi wàccee ci taxi bi gaa bi da ko woo mu ne ko maa ngi ni taxaw mu ñëw bi mu ñëwee après Mohamed ki mu ko boole loon moom da ko dafa woo Ramatulaay si téléphone am ne ko jox ma sama cousin bi téléphone parce que cousin bi dana ko sama téléphone dafa fay mu jox ko téléphone bi nee na muy wax ak moom ba ci yàgg ñu ngi avancé mu ne ko indil bagage yi c'était un peu compliqué parce que vraiment nee na foofu dafa wét te miinu d'après les investigations qu'on a fait compte Facebook Mohamed Aïdara bi mu ngi ko ubbi ci numéro 78 78 452 93 75 78 452 93 75 de ton plus élu le tout de ton